conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen jàngeen jëf yéeni kay xëy tey dikkaat ci màggalub tubaatum ren ji réew mi quotidien ñëwaat ci soxna Ayda mi nga xamante ne ju ko màggal ndax li mu namoon a def ca Medinatul Salaam préfet bu Mbuur daal di koy gantal moo tax yéeni kay bu groupe réew mi network bi di xam ne ni yëfi métti na lool soxna Ayda ba mu namu ko yóbbu ci yoon ay awokaam ñoo ni xamle leneen li réew mi quotidien xamle moo ni njiitu réew mi Macky Sall daal di nay jébbal lu toll ci ñaari ñaari titre foncier xalif général kullu murid di Serigne Mountakha Mbacké Touba moom mbooloo mi fa teew foo ko natt weesu na ko Sud Quotidien di xam ne ni ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-beneel yoon ñuy amal màggalub Touba bi liñ ci doon xaar ci wàllub ñaan waaye tamit respecté mesure barrières yi lépp jaar na ci yoon mbooloo mu takku a takku le tribune yéene kay daal di gis tamit ci màggalub Touba atum ren ji moo ne de ci njamonoy mbasum covid 19 la ñu nekk su naataango yi gisee mobilisation bi Touba daal di bég lool waaye yéenekaay groupe di média bi dikkaat na ci jafe-jafe yi ñu nemmeekuwaat ni ki atum ren ji bokk na ci ñàkkum ndox mi waaye tamit ay bakkan yu ci rot ndax lu toll ci fukk ak juróom-ñaari doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci ay accident accident yooyee naka noone jafe-jafe ak lu jëm ci mobilisation taalibe yi moo tax yéenekaay bi di las di xam ne ni màggalub ren ji moom bëri na ay record yi nga xamante ne jël na ko ki def ay record ci boppam mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimu Rasoul Dakar Times dikkaat ci ab gëstu bi nga xamante xamante ne ay universitaire def nañ ko ci wàllub mouridisme ci téere bu ñu fësal yéenekaay bi di xam ne ni kon dikkaat nañu ci dundub Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke jaar-jaaram waaye tamit taxawaayam dëgg ngir l'islam yegg fu mu yegg tey ji source a wax ci juge bu cour des comptes bi nga xamante ne dafa mel ni kuy jàppal tànk UMS ci xeex gu ñu nekk ak taxawu ki nga xamante ne mooy seen njiit di Souleymane Taliko moo tax yéenekaay bi di ko jàngatee ni beneen weddi la gi ñu nemmeeku ci jëwriñ ju ñu dénk wàllub yoon di maître Malick Sall màggalab nga xamante ne dañu ko dundee ci ne ñoo amee ndox ca diwaanub Touba l'observateur def ci ab reportage ne naka la taalibe dundee bi ci mi kuy dund ab guuta mooy kër gi di ay luuxu rek i njombe la ñu fa nemmeeku ndax lu toll ci ñaar téeméer ak juróom ni ay millions la fa daal di lubal bu ñu sukkandekoo ci libération yéeni kaay bi xëy tey di xam ne ni Ndeye Thioro Dia mi nga xamante ne dañ ko ci teg loxo moo tàmbalee yoole ay naatangoom yi nga xamante ne ñoo ci takk bokk na ci ñum ci lim njiital hypermarché exclusif exclusive mi nga xamante ne takk na ca libération di xamal ni doyen des juges daa jébbal premier mandat de dépôt bu njëkk ci mbir mi Macky di jébbal am ndimbal ancien soldat yi nga xamante ne ñoom la ñu jëlee ca terme sud ca diwaanu Wakam l'observateur dem nemmeeku ji anam yu métti yi nga xamante ne ñu ngi koy dundee ca centre socioculturel bu Sacré-Cœur anam yu équipe bu Sénégal di waajalee jongante xaritoom ak Maroc nekkul yu mucc ayib bokk na ci li ko waral kàngam yu équipe bi di Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly naka noonee Diao ca moo tax kii tàggat gaynde yi Aliou Cissé ci stade yéenekaay di xam le ni ñetti suur yooyu nga xamante ne ñàkk na leen ci bile jongante lu ko métti la suñu naataangoo yi di ci samp laaj ni ana ban xar kanam la équipe bu Sénégal war a taxawee te ñaari njiit yi di Kalidou Koulibaly ak Sadio bokkuñu ci suñu lamb di wax ci ñu war a bokk ci demi-finale bi war a dox diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier waaye tamit Ama balde ak Modou Lo yile combat nga xamante ne taxawal nañ leen ba noppi yéenekaay groupe Africom bi jàngatee ko ni mbëbëtu ku nekk ci ñoom